asalaamaaleykum Imaam Khalifa. waaleykum salaam wa Imaam ñu baax a baax a baax yaa ngi waaw ñu leen di fay bu baax a baax. yéen waa Sénégal 7 di commencé nuyoo bi ci ki nga xamante ni mooy kilifa gi nekk foofu. di ci teg euh, ñu leen di déglu à travers Sénégal ak li ko wër ak monde bi yëpp rawatina diaspora imaam mhm, jërëjëf imaam si biir penc bi euh, lii di Sénégal mu am wax ji jub jub rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, wax baatu laa ilaaha illallah mhm. di njabootu jullit bi Ahmed Cissé doon ki nga xam ne ràññee nañ ko si paysane mais yaa tëdd ñu ay kàddu jëmale si diine lislaam mhm. ñu bëggoon xam jànkat bi ngay def ginnaaw moom mu waxee kàddu yi nga xam ne ñu bëri ñu ngi koy ñaawlu si biir réew mi waaw tout d'abord man sama wax moom du ci set fi mu ko doon defee Euh, fi mu ko doon defee bu mu métti ci yéen nag parce que ay seen collègue lañ foofu lañ waroon a njëkk a tëj d'abord ñooñu ko doon defloo émission bi ñooñu ñëpp dañ leen a waroon a jàpp parce que damay rappeler li xewoon ci Charlie Hebdo Charlie Hebdo dañu caricaturer Seydina Mouhamad mais place bi bi ñu fi ñu ko def la ñu taal ba mu nekku doom d'abord kon dof boobu santi Cissé wax jooju mu wax jëmale ko ci alquraanu karim ñi nga xamante ni ñoo ko invité woon mu yëkkati kàddu googu ñu am sañ-sañu ak audacité bàyyi bàyyi kàddu googu di jàll au lieu ñu censuré ko wala ñu bañ mu jàll ñooñu la ñu waroon a njëkk a tëj place ba nga xamante ni fa la ñu fa la ñu nekk ba keneen ku ko bëgg a defaat wala muy bëgg a woote émission bu mel noonu moo xam muy woo imam Khalifa kenn Ndiaye wala muy woo keneen ku mënti doon muy balaa muy commencé ay émission danañ ko avertir. mu xam la mu fay waxe léegi nag bu loolu amul nag bu loolu amul euh, li muy jur li muy jur nga baal ba doon am ku doon woote ci suuf li muy jur mooy ni euh, la la la nga xamante ni moo xewoon ca Charlie Hebdo lu ko lu ko gën a pire mu ngi ñëw ca xew jël la naa noon moom jëmm jooju nga xamante ni bëgguma sax ngeen naan diw di ca teg tur woowu parce que moom li mu wax génn na ci l'islam li mu wax saaga na diine l'islam li mu wax manqué na respect jëmee ci jëmee ci jëmee ci alquranu karim te alquran ku ko manqué respect manqué nga respect yàlla ku ku ku manqué respect kàddu yàlla mais manqué nga respect yàlla ñàkk nga teggin yàlla sëriñ yonent bi la ñuy caricaturé ñu ne la ku ko def rey ko dagan na ci moom kon moom ak dundam ci kaw suuf menace bu bon la dañ ko war a éliminer man loolu laa jàpp yeneen explication amu ci lii nag dafa am lu bari loo xamante ni daf ko wane ci réew mi te war nañ war nañ ko xoolaat war nañ ci defaat njàngat war nañ ko xoolaat war nañ ci defaat njàngat ngóor soosu li ñu koy bàyyi mu bu fekkee ni dafa am mission bu muy dox ci réew mi boo xamante ni dafa am ku nekk ñu nekk ci gannaawam di ko di ko ruux ngóor si barki bu yàggul rek bu yàggul rek nga baal ma maa ngi koy maa ngi maa ngi seetaan benn ñu ngi ma mu def boobu mhm. mais li yàq Sénégal ci jamono jooja te nekk États-Unis loolu rek jaroon na balaa muy dugg ci Sénégal ñu xoolaat ko mais pourquoi mu toll États-Unis wax li muy wax mais man dama xool ba mu yàgg ma ne mais ñun ñun ñun ban réew la ñu nekk ban réew la ñu nekk ñun en tout cas fa moom moom du lu ñuy wax ci ay télé du lu ñuy wax ay rajo. waaye euh, ministère mënu ko faj loolu ministère mënu koo faj loolu ministère mënu ko faj xam nga lan la gis nga hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan jëf ju rafet jëf ju rafet doo nga koy fay jazaa'u sayyi'a mm. jazaa'u sayyi'a sayyi'atun misluha jëf ju ñaaw moom ki ko jëf nañ ko delloo jëf ju ñaaw yooyu ba mu yëg ni def na ko xam nga di toog di xaar naan ay jamra nañ ci wax nañ ko sanction nañ ko jël gis nga wax na bër ci démb bu yàggu rek ne xam naa ne danaa waxaat lu muy bu kaso kooku kon xam na li mu doon ñaara am ñu delloo ko ñu delloo ko réewum Gàmbi gi mu jógee bu demee foofu bu ko fa mënee wax ñu muñ ko alhamdulilah te bu ko fu buñ ko mu muñee tamit képp kuy jullit moo xam nga nekk Gambie wala nga nekk Sénégal wala nga nekk feneen fu mu mën ci doon yàlla teg na ci sa loos responsabilité kii nga jëflanteeg moom waaw nga jëflanteeg moom ba ba kanam des du menace bu dara waaye dafa yelloo kii ñu rendi ko dafa yelloo ñu rey ko parce que dafa taxaw saboté alquranu karim dafa taxaw saboté waxu yàlla dafa taxaw li nga xamante ni mooy symbole jullit ñi mu jël ko def ca ñiy jël kaamil sax di ko lakk kii ñoo ñoo tànn jëmm ji. Mhm. wax lii mu wax. Mhm. man ruus naa jomb naa tudd turam. Mhm. ñamoon na ko nag neex na dugg kaso génn. ñu ne waaw mu xabtaluwaat waaye daal li ñu acte bi ñu war a njëkk def te ma koy ñaan ma koy jaan ma koy ñaan. ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk réew mi maa ngi leen koy ñaan. fam ko doon defee nañ leen njëkk a sanctionné moom moom bu ñu ko sanctionné ak bu ñu ko sanctionné wu bee moom préparé dundam dootul neex Sénégal incha allah. wute. waaye kooku kañ ko weddi alxuraan kay ku ku ku taxaw ne lañ ci bind du dëgg yàlla day lépp xam nga luy lépp. Mm-hmm. lépp mooy nga toog ak say doom ñu reer ba suur nga naan leen léeboon ñu ne la luppeen nga naan leen amoon na fi daana fi am. Mm-hmm. mais yàlla yàlla toll na ci ay lépp. Mm-hmm. surtout nga ne alquran aaya bi fii wala saar wi wala boog juslu bi wala xaddu bi wala waqaf bi ay léeb la ah wala baat bi ci alquran da ay léeb la ci yàlla jële mais kooku kooku kooku kooku kii mbaam la kat sax ko gëm ngeen baal ma ci kàddu gi bu neex bu mos a neex te na ngeen jàllale lii ba ñëpp dégg ko waaw su leen ko jàllalewul seen télé seen rajo bi dootuma ci def émission waaw dootuma ci def émission te gis nga xaw jàpp ma sax rajo bi mu ko defee ak bi mu ko defee mais buñ buñ xalaat mu ko invité ma ba ma yëkkati sama kàddu di ko ci jibal kii maa ma ko tane mm-hmm, mm-hmm. amul dellu si di tuub wala leneen nañ ko génne Sénégal dëkku fi nee na moom américain la léegi donte jiital na ni Gambien la nañ ko génne Sénégal mu dellu gis nga alhamdulilahi rabbil alamin mm-hmm. bañu ba ko bañ ko defee lu métti ca Medina Baye ko woon bàyyi ngeen baal ma nag bu may déglu ñëpp. fi may waxee ak ni may waxee nii. gëj naa wax ci rajo yi sax ak ci télé yi mais ni may waxee nii. dama yëg ni tuuse nañ loo xamante ni waruñu ko woon a tuuse. te nag ne état ci responsabilité am parce que moo ñuy révier ko. moom nag du nekk étranger ba pare ñëw ci réew mi bëgg a ŋànk réew mi lu ko neex wax lu ko neex def ñu bàyyi ko ci loolu. du ci rëcc de incha allahu taala maa leen ko wax. incha allah du ci rëcc mukk àdduna.